للمصطفى نويت ما يجدد سنته الخراء وإني أحمد بسم الله الرحمن الرحيم لله العالمين li nu fi indi te bàyyi nu fi di ñaan yàlla ramadaan bii génn yàlla na lakkaale lépp loo xam ne bi ab safaan la ci ñun te mu bàyyi ñun jikko joo xam ne dañ koy wéyewaat ba déwén dañ koo baaxoo di ko def ngir di fàttalente fàttalente bi mooy àdduna day dox dañ nekk ci àdduna war a xam liy dox ci àdduna war a xam len lu nekk luñ koy moytoo ak lu ñu war a defit nuñ koy defee àdduna moom fitna rekk la baaxoo ak coono wante nag du tee ña doon baax ñi ngi baax ba léegi rek yàlla ñu yàlla boole ca ñooña àdduna bi day mel ne day gën a bon jamono ju dikk gën a bon yu jëkk ja ndax at yi yëpp ñu ngi leen di fàttali tollukaayu àdduna bi ak fi diine ji toll xam ne boo waroon àdduna ba mu daj doo fi gis benn benn benn dëkk boo xam ne mi ngi àttewoo lislaam dafay am lu jàpp rek muy ay intérêt mu tudde ko lislaam bi ko àttewoo waaye lislaam kenn àttewowu ko loolu nag dana dellu ci mbooloo yi waaye dana dellu nag ci ñu mag ñi nga xam ne ñoo yore doole yi te yore baat yi te waxtu nekk nag Arabie Saoudite la ñu cité ndax dëkk boobu nga xam ne fa la Màkka nekk Madina du nekk fa yonent bi tëdd fa saxaaba yu baax yi nekk fa lislaam wàcce woon foofee dëkk boobu ñoo waroon a joxe exemple ci àdduna bi ba ñëpp roy leen te ba fa yàlla defee loolu ba noppi nag jox na leen kàttan jox na leen xam-xam jox na leen doole jox na leen man-man bu tax nu war a àtte waaye nanguwuñu ko moo taxit yàlla fu mu toll yàlla fu mu toll biig ci guddi rek junni junni misil sànni nañ ko junni junni misil lañ sànni ci biir ci biir réew ma biig ci guddi bi rek juróom-ñetti fukki nit lañ ci rey ak juróom-ñeenti juróom juróom-ñetti téeméeri nit yoo xam ne dañ leen a blessé te julli seen jàkka ñu fekk leen fa ñuy def xiyaamu layli ñu songu leen fa rey leen tasaare leen toj seeni kër jullit yépp ne cel di seetaan te jullit yi di milliard ak genn wàll mat nañ ko ci àdduna bi te alali yépp ñoo ko yore kon nag ñàkk a nangul yàlla moo tax yàlla seetaan lii te waxuma la de Arabie Saoudite Makka Pakistan Turquie Égypte ñeenti réew yi képp laa wax bu ñu mànkoo woon bu ñu mànkoo woon laa wax kon lee ñuy def Israël lee lee de def Égypte Philistine kon du ko mën a def waaye kenn ku nekk yaa ngi toog sa ruq faalewu lislaam lislaam aw tur la rek tey ñu ngi nii àdduna bépp at jullit yëpp am am gàcce tey ñëpp ñëpp rus ñëpp rus parce que juróom-ñeenti million Amérique ñett téeméeri million jullit yi nekk milliard ak genn wàll ñu dëkk leen toroxal te mënuñ caa génn war nañoo xalaat seen bopp bu baax war nañoo xalaat seen bopp bu baax xam ne lii de fa muy mujj ak ñoom du baax te caay-caay jii de Israël ñi ngi koy def waaye fii ñu àgg nag Trump mi fi bàyyi ko moo ko fa yóbbu ba tax jamono ba muy ba muy wate ca njàlbéen gi laa leen waxoon ne ñaan leen tromp bu mu yéeg bañ ñaanut ba mu yéeg def caay-caay goo xam ne kenn mësu koo gis ci alamu islam yi may leen ñaan leen mu wàcc moo tax dañ yàlla toroxal na ko wàcce na ko ci benn mandat te loolu Amérique ñaari ñaar ñaari président ñoo ko fi defe kon moo leen ñaareel Biden Joe moo fa nekk tey waxagul lu leer ndax mbir mii dafa waroon dafa waroon a dafa waroon a taxaw ndax conseil sécurité wax nañ ci ñu baree bari wax nañ ci waaye lépp nañ bu nekkoon Amérique lee Israël def dana dakk waaye nee na moom day seetaan day seetaan nag ñaar ñuy xeex kenn di nga puudale ka ci des nga ne damay seetaan loolu ak sot lay tekki waaye noo ngi ñaan Biden Joe Biden su fekkee ne mbir mii daf cee laal dara nekk ci suuf di dimbale yéefar yooyu la daloon tromp lu ko raw yàlla na ko dal ndax gis nañu ne mi ngi tàmbali di lawal ak ngóor jigéen di ci force réew yi ba suur réew mi Sénégal ñu ngi ko fi jéem a dugal ba ñi ngi def ay tappale defe ne mën nañoo fexe ba jàllale ko waaye du jàll mukk jarul jéem jëru sonn ak ngóor jigéen du law ci Sénégal mukk ci àdduna ba ba àdduna tukki booy boo baax a baax lislaam ji de foofu la toll néew doole rek te néew doole ñoo ko teg seen bopp yàlla jox na leen kàttan jox na leen lépp li ci war kon lu ci lu ci des ci ñun la dese waaye du ci du ci yàlla pétrole beeg lépp ñoo ko yore waaye tey Amérique moo leen gaw moo leen moom moo leen jilif Amérique lañ gën a wóolu seen bokki jullit kon alamul islam bi foofu la toll lépp yàqu na conseil sécurité doo dégg kenn mennam Erdogan mennam ardogan ngay dégg mu yëkkati kàddoom di wax di soow wala Iran doo fi doo fi déggaat keneen ñi ci des ma bokkuñu waaye de nun bëggoon nanu président de la république bu Sénégal mu yëkkati kàddoom wax ci parce que Palestine dañoo dañoo taqoo ak Sénégal yàgg nañu yàgg nañu ñoom moom ñoom sax jiite woon nañ ko Sénégal gi jiite woon nañ ko conférence islamique kenn déggu leen dara xewut waaye nag war naa yëkkati kàddoom ndax ba mu xew bam ba mu xewee ca France ci Charlie Hebdo de fii la jóge woon nag dem ba mu demee naan nun nu xaw nu mu koy waxee ci Camara dem nag naan ci Charlie Hebdo ci ci wë wë nga xam ne ay saay-saay képp lañ buñ ñu defee luy lu toll nii l'islam te nga jiite quatre-vingt-quinze musulman ci ay jullit war ngaa yëkkati sa kàddu bañ dégg la kon donc ci ciy déglu waxtaan wi nag du du gudd ci juróomi tomb rek laa koy def bu njëkk bi mooy sëriñ seen bopp war na noo wax ci seen biir ndax nu it nag ci lañ bokk am nañ ci droit waaye takk der yi nga xam ne ñooy police yi war nañoo wax ci seen biir ndax am nañ ci droit nag ndax nun noo leen fi teg ngir ñu sàmmonu waaye docteur yi nga xam ne ñoo nekk ci hôpital yi war nañoo wax seen mbir ndax nag ñu dañ leen teg ngir ñu tàmmal suñu wér-gi-yaram journaliste yi itam war nañoo wax ci ñoom ndax ñoo ñu di jot li xabaar te xabaar yi dafa nekk war a nekk xabaar yu dëggu politiciens yi nag moom ñoo waroon a jël lépp moom mu jeex parce que nag ñoom ñoo yore suñu mbir te yoon yi jaar kenn xamu ko sëriñ si diine tumuranke na diine jaaxle na diine xamatul fu muy jëm te diine de lebalu leen lii kenn ku ci nekk de diine teral na la teraanga joo xam mënoo ko am fu muy ci diine nga waroon a waññee wàññeeku teraanga ñu nga delloo ko diine kenn delloowu diine dara kenn diine delloowu diine dara Sénégal gii bu ñu fi nekkee quatre-vingt-quinze pour cent diine mënut a am benn baat benn taxawaay bu mënu ko am ba waxumal dara waaye gis mën a gis weer woo woor maa woo woori sax julli yi mënuñ ko te dara tegu leen ko lu may ñàkk a mànkoo ba mën a am baat tey jii bu fekkoon ne dañoo manqué woon ba am baat dañ leen tëralal loi boo xam ne bii loi boobu ci la ñuy sukkandiku ba buñ neetee weer yu feeñ la ñu ne weer yu feeñ la buñ ne waaye di xëccoo yow amoo baat cim réew kenn tegu fenn joxuñ la benn esthétique amul loo doon jéemoo ko kaas jéemoo dara nooy def ba lislaam am doole lu may ngay jé jéem a xëccoo aw weer bañ naan ñetti ñetti président lañ ko def ñoo koy jiite sëñ bi ñi ñàkk bopp ñetti président ñooy jiite séntu weer wi weer yi ñëpp ko mën a séntu ñëpp ami bët amu fi commission ak dara ñëpp ami ju nekk dangay ngay séntu weer yi bu fay ñu xam ko am na lu nekk ci biir lu ñu waxut jooyoo gu bari ji nga gis nag bu leen defee ne yàlla du yàlla jooyoo gi du yàlla de kenn ku nekk da nga bëgg a siiw rek am na loo bëgg amal te xam nga ne ci juyoo gi nga lañ lay xamee ba xam yaay kan nga mën a taxawal li ngay taxawal dong noonu dooni dof weer feeñ naag weer feeñu daal sañ buñ ci di xuloo am na lu nekk ci mbir ma loolu nag sëriñ si ñoo ko may dindi yàlla sagal na leen jox na leen baat nañu nañu nañu wañ loxol gouvernement bi bu fekkee ne am mënuñoo am loi itam ñu defal leen boo conseil supérieur islamique boo xam ne mooy tiim loi yi conseil supérieur boo xam ne mooy tiim loi yi bu assemblée bi wateetee ba noppi loi boobu balaa jàll dañ ko yót kilifa yi diine yi ba ñu wàlli ko buñ ko wal diwut du jàll luwaay loolu lu yomb la seen luwaay yi ñuy ñoo ko tëralal seen bopp rek du dara te yéen lii ngeen yore yàlla leen ko jox kon sëriñ si nañ dellu siwaat seen bopp xam ne yàlla teral na leen association islamique yéeg gaa yi ngay gis ñu yëngutu yépp kenn ku nekk da am intérêt booy xeex rek waaye du yàllay kese bu doon yàllay kese benn bis mën nañu koy régler ko liñ bëgg ci réew mi dana am te kenn mënta tee mu am wante nag bu fekkee nii la ñuy doxee bu fekkee nii lañuy ñuy doxee wallaay gars yi nga xam ne day beneen culture lañ yore yore ko réew mii dañ yàgg wat suñ kaw di ñu nappaa jin bi leen neexee te duñ ci man dara kon nañ dellu siwaat seen bopp ndax nag kat mag ñi def nañ li waroon def de ba ñëwee mu jafe xool nañ lañ waroon a xool stratégie yi ñu waroon jël jël nañ ko ba taxawal nañ li ñuy taxawal ba soppi nañ àdduna ba teg ko seen loxo waaw nun nag mag ñi dañ ci liggéey sëñ Tuubaa lim def ba dëkkam bii mel nii mburu dañu ko ca tànn ba lépp ñëw mu teg ko suñu loxo ay doomam ñëw fii mu dox baag si ba ci ba ci ñi fi des nii ñi fi des ana luñ def ana luñ def dañuy toog rek ne barkeb Sëñ Tuubaa bi nit ko nuyu su jóotaloo ko mu mer boo toogee ju boo toogee ca kaw nga toog suuf nga mer boo ko waxee nga duma sa morom waaye yooyu yëpp amul solo li amoon solo mooy ñu def ñu def taj tajdiid suriyatan tayyibatan tujaddidu nahja nabiyal Mustafa du loolu lañ leen di doyee waaye lii nga xam ne moom lañuy ñuy wane nii kenn ku nekk di wane ne maa maa maa maa maa maa gën sa moroom maa ngi lii maa ngi laa taj tajjëf amul nit ñi du ñuy dof ñu ngi xool di xam ku dox ñi xam nañ ko ku doxut xam nañ ko lii Sëñ taxaa def daal laa xam mbir bu dikkee baag say loxo la nga yéene a def daal di cay nekk ndax lee muy def de bu fekkee yàlla dimbali na ko ci Sëñ Tuubaa far ko ci murid yi far ko ci ba mu àgg dana bari lu ñu doon naxaat loo xam dana dañ waaye nag ndax ñi ngi koy jàppale ndax ñu ngi koy jàppale te loolu mat naa xool te nag noo ngi xippi suñuy bët di xool yàlla lañ yàlla lañ gëm yónente mooy suñu yónente Sëñ Tuubaa mooy suñu wasila ku jaar ci yoon ñu xam ko ku fi jaarul ñu xam ko koo xam ne kii da ngaa jàpp ne barkeb sëñ Tuubaa bii nag lekk ak naan dang la ak sol say mbubb ak say def def say kër yu rafet wut say oto bu fekkee da ngaa jàpp ne loolu dong la yow de li wérte wóor wooy bérété woo sëñ Tuubaa di la boole ci suryetan tay suryetan tay batan tujadidu loolu mu walaa bale fii nag ni la walaa bale Tiwaawan ni la walaa bale Njaasaan ni la walaa ne walaa bale Laayeen ni la walaa bale Kawlax ña fa nekk ma ne nañ taxawaat takk seen digg yi la leen seen bàyyi ak seen maam yi bàyyee woon ñu eh, amélioré ko bu baax ñoom itam ba mën a taxawal loo xam ne lii dana dëppoog seen jamono te li dëppoog suñu jamono mooy looy taxawal dem ba assemblée ñu te ñu ñu wate ko ay loi nga jaar ci kaw loi yi sukkandikoo ci ba def li nga bëgg a def waaye waxi kese du sottal mbir rek laa ci yem takk der yi booy wut booy booy booy bëgg gis nit ku réew ak nit ku xamadi ak nit ku mënta joxe cër ak nit koo xam dañ koy màggal te du màggal kenn nit koo xam dañ koy wormaal te du wormaal kenn nit koo xam dañ koy moy te du moytu kenn ngir sa salaire buñ koy fay parweer boo bëggee gis ku mel noonu gisal ab police mbaa nga gis ab gendarmerie parce que liñ gis te di ko xool mooy gis nañ ne ñi ci ëpp ci ñoom am na ñi ci ëpp ñoom du ñëpp nag ndax am na ñu ma ci xam ñi ci ëpp ci ñoom saa buñ jàkkaarloog nit nuñ koy toroxale rek moo nekk seen xel te lii may wax kat ñëpp ko xam saabu buñ yow même amal dëgg ñàkkal dëgg buñ jàkkaarloog yow maanaam ci seen kanam yi rek ci lañ lay di la terroriser yow di la boo boo leen gisee ni ñu lay def dong kanam yaag ni ñuy waxee yow képp ñi nga xam ne kii ab terroriste la koo ci dugg ci bureau boo fay jógee sëñ bi da ngay say tànk day laxasu jànnite yoo xam ne yi kenn xamul lan la lii xew bëkki démb ci Touba yi xaw ma président bi nga koy dégg xaw ma ministère de la force armée ministère de l'intérieur koy dégg lii xew ci Touba yi bu delloo xeweti jàppale na lu lu ngeen jàpp ne doo am rek danaam kilifa gu nekk ci këram di ko jub ñépp xam ak jubam ak mbaaxam doon doon doon kilifa ci dëkk bii sëriñ bi nga ne danga am koy seet amook teeylu dem fekk ko këram dajji këram fekk ko ci biir néeg ba dóor ko yeew ko génn ko ci biti def ko lu bon loo xam yóbbu ko ca commissaire ba dem bàgg ne ko damaa juum loolu loolu loolu loolu loolu <laughs> loolu doy na waar su fekkoon ne loolu dafa doon lu bees loo xam ne lu lu bees la ñu ne dañoo juum waaye yéen fii ci couvre-feu bi gis ngeen nit kuñ fekk ci biir jàkkaam génn ko dóor ko ba xaañ gis ngeen kilifa koo xam ne kii daa génn ci këram bëgg a jëm ci jàkka ji ñu dogale ko yanu ko dugal ci biir oto bi di yóbbu gis ngeen fii nit ñoo xam ne bii dañ leen di fab sànni ci biir oto yi di leen dëgg te di leen maase di leen def yu bon yoo xam ne kenn xamul lan gis ngeen fii kilifa guñ nga jàpp mu leen wax ak ñoom ñu naan ko sa kilifa gu mag ko sax buñ ko jàppoon nii lañ koy def xam nga ni ñu bon ñu ñoo bon taxamat yi waaye ñi leen di jox ñi leen di jox baat yi nag ñooma ndax nit ki bala nga koo jox baat mu yor sécurité am réew day xam réew ma te xam kooku mooy kan ndax sa da nga gis nga saa bu ñu la waxee ne sa jaam ba moom lañ fal moom lañ fal chef moom moom lañ fal chef de canton booy boo yenu say bagage xam ne bu xëyee yow lay jëkk a toroxal daf cee bari ñoo xam ne bii nag ay mekkontaan lañ mekkontaan lañ bu ñu leen defee ay gendarme wala ñu def leen ay ay ay policier li ñuy def mooy kilifa gu baax ñu gis mécontent gi mu leen puus bopp buñ luñ ko mën a def ci ak toroxal ak ak doyeetal danañ ko def te lii xam nañ li ma wax kon xool ñi indi fii ak niñ leen di tànnee. nañ xool ni ñeenti fi ñu leen tànni mas ma am fii koo xam ne sama oto laa yebal ay jigéen a ci nekk ak ay gone ak dund bu jëm ci daara bi mu demee ba fii ci panel ku ñuy wax jàlloo jàpp ko bi ma ko jotee dama ko ne waa jàll bi mu ne ma woto bi dafa am problème ma ne ko ah waaw man man maa ngi ko jënd kër yëpp mat na mu ne ma dafa am problème ma ne ko comme dafa am problème léegi téyel euh, téyel carte grise bi ak ak ak ak yim aju yëpp comme dafa guddi nii te mi ngi taw te ay dongaa ci nekk ak ay jigéen baal ñu yóbbu mu mu lànk ne ma ba ma ko waxee ba dafa ma ne man doo solo sëriñ ah ma ne ko waaw yow lu ci dugal dugal ak sëriñ xanaa santu mbàkke wee tax waaye man dama laa wax ne bàyyi leen ñu yóbbu ñu ñu yóbbu ca daara ja wàcce bagage yi ak godee jigéen ndax da mi ngi taw te daa guddi noonu la lànke ma woo représentant ki représenté si si si si suñ mun suñ mun mu dikk wax ko mu làng nga xam ne maire balaa mujj woo mu abal ma oto ma ñëw dindi bagage yi même ñu ne bagage yi nañ ko ay wàccee dugal ko ci biir kos bi sax dafa làng te mi ngi taw ak jigéen waaye defe na kooku mérite na ñu di ko ñu di ko jox ak benn ndomba tànk maanaam ku ñàkkee noonu yërmaande même bu bu mu dul sëriñam du ma daraamit mais ay gone dong mu jant soo muy taw mu yor ab dund kër gi mu ko yóbbu nekk nii te jàpp nga woto bi loolu loolu may leen gis ngeen ko nii de jikko yu suufe yi lañ yor waaye nag sant naa ci yàlla ndax ba mu ko waxee ba noppi ñi muy liggéey loo da ci am ko Baay Faal la mu dee ma ne ma sëriñ bi bàyyi fi waa ji te seeti kilifaam ba ma seetee kilifa ga ba ma ma demee lu ma waa ji defoon ci caay-caay rek kilifa ga defal na ma teraanga junni toll muy Assane Ndiaye la tudd defe na ci ngeengi neew lu ma defoon ci caay-caay moom waa ji rek kilifa ga defal na ma teraanga junni toll ma ne ko ñu mel nii lañu war di jox baat yi kon takk der yi xoolaat leen seen bopp xam ne am na adresse bu ñu leen wax bu bon boo xam ne xamu yéen a koy dégg ak biir dañuy wax ne policier du bàyyi dóor ma ne ko daa xam ne ki muy dóor du fayu rek policier du bàyyi dóor ki muy dóor daa xam du fayu rek waaye ponkal boo xam ne moo la man fopp nga di ko jàpp di ko dóor mu dee seetaan nga defee ne ak njàmbaar la xam nga ne du njàmbar da nga am tax dalaa séddu cër ngir der bi mu la jox ak baat bi mu la jox yow yaa ko séddu cër moo tax nga di ko dóoru waaye xam nga ne bu doon yaa ngi ci mbedd wóor na loolu nag dafa mat a xam am na ñoo xam ne der gi daf leen a màndi daf leen a màndi bu ñu ko takkee maanaam ñoom ñu màndi ñoom dañuy defee daal ay yàlla yu ndaw lañ walaay du ñuy yàlla yu ndaw nañ xaar rek tey de kilifa yi ñuy fontoo de mboolem koo ci xam ne kii dem nga ba am ak problème ki la doon fay salaire de ci kilifa yi ngay daw dawaat dellu si làqu seen gannaaw gi ñu dimbali la kon na ci président wax lu garaaw la de loo xam ne du lu tuuti foofu laa ci yem docteur yi ma clinique yi bari na clinique yi bari na lool lool lool lool ku moom clinique yi yéen docteurs yi yéen a ko moom dañ leen a fay ngir ngeen liggéeyal nit ñi ngeen wàññee ko berse di clinique di fayu nit ñi loo xam ne mënuñ koo am boo demee ci boo demee ci ci ci ci hôpital ba ñu jox la rendez-vous boo xam ne bi boo xaa boo xaaree rendez bi dee nga dem ci clinique ba booy xaar rendez bi di dee te ñoom ñoo fa ne daan lay joxoñ seen clinique rek boo demee fay analyse yaa ngi bëgg rey nit ñi rajo yaa ngi bëgg rey nit ñi yëf yaa bala bala nga balañ laa faj dañ li li nga amoon dañ koy jël ba mu jeex takk ba dootoo am loo fajoo ñu door a sa mbir bu ko defee dee rek ngay dem soo munta soo munta soo munta jote jot ñoom nga dem fekk leen seeni clinique fay leen loolu góor gouvernement bi war na cee wax nag nit ñaa ngi bëgg de amatuñ fañ fañ fajoo amatuñ luñ fajoo amatuñ ku leen faj te lii ma wax de gouvernement war na ci bàyyi xel de ba ki dem dama am ak wéré dem hôpital principal bi ma demee dañ ma dañ maa wax ne bala ngaa dugg da nga joxe téeméeri junni yoo xam da nga koy teg fii moom ma génne téeméeri junni joxe téeméeri junni yooyee nekk naa fa ba jóge fa ab aspirine joxuñ ma ko ci benn aspirine <laughs> te noonu lañ lekk xaalis ba waa naka ki nga xam ne mënut a am fukki junni nag moom nu muy def ba ma duggee ba ci biir. Euh, maam Thierno maam Thierno maam Thierno Dieng mi nga xam ne mooy directeur bi ma ne ah naa woo ma euh, directeur bi waaye ndax comme maa ngi fii ci biir daal man fay naa ba pare naa ko woo mais gis nga ba ma ko wooyee ba jot ko ne ko maam Thierno ànd foo nekk mu ne ma euh, xaw ma bis ma ne ko ah, man dama laa bëggoon gis maa ngi hôpital sax waaye xam nga lu ma ci teg ma waxee ba doom ne ko waaw ah, kañ laa lay mën a gis mu ne ma pet mu ba ma peut-être <laughs> ma xam ne ginnaaw man lay wax lii naka nag ak ku néew doole koo xam ne ki yow mënoo dugg foofu yow noo def peut-être yow ñu teg la fi ngir nga war a dimbale doomu aadama yi nga ne ci ku ci biir hôpital bëgg laa gis xamoo mu lay doyee ah nga naan ko peut-être à l'arbre may leen gis ngeen ko nii ku ngeen ci yaakaar ba defee ne yéen la fi nekkal nekkul leen seen bopp leen nekkal kon nañu xoolaat yëf yi xam ne yoon wi ñu jaar baaxut wii du jëme senegal kanam da koy delloo gannaaw rek journaliste yi xoolaat leen seen bopp waay jaxase gi bari na lool tappale yi bari na lool xabaar yi wérul yi bari na lool in jaakum ba bi naba in fa tabayyanu an tusibu xawman bi jahalatin fa tusbihu ala ma faaltum naadimin yow xabaar buñ la jox yéen yi lañu sukkandikoo defe ne yéen ngi wax dëgg xabaar bu buñ la jox boo ko toppee ba ci biir xabaar ba du doon dëgg ab intérêt ca nekk boo xam ne bii moom ngay daw ca biir ba tax nga jaxase doomu aadama yi ba ñëpp nekk ci nekk ci nekk ci fitna te yaa leen ko teg yow journaliste kon journaliste nañ xoolaat li ñuy wax xabaar yi ñuy joxe kat boo ko toppee ba ci biir da ngay dem ba yàgg nga xam ne ñii kat mérétoo wuñ métier mu tedd mii mérétoo wuñ ko de parce que wax ji moom li ci ëpp boo ko toppee ñu néew la ciy wax dëgg ñu ci bari seen intérêt la ñuy wax nëbbu ko ci biir nag bala nga koo xam dugg ba ci biir kon journaliste nañ xoolaat seen bopp xoolaat doxin wi xoolaat ni ñuy joxe xabaar yi tey di wax dëgg te yàlla tax parce que ñoom bu ñu bu njàqee rek àdduna tukki ndax li ñuy wax nit ñi dañ koy gëm te buñ ko gëmee dañ ci sukkandiku te bu ci sukkandiku dem ba ci biir dara du ci doon dëgg kon dañu xoolaat seen bopp xool ni ñu joxe xalaat xabaar yi ñu nekk ci internet bi dañ xoolaat seen bopp nit wax yi waxam ba noppi nga seet ndiggante sa la ca neex nga ne ko kettet daal di koy publier yàqal ko addunaam te fekk li ngay wax dara du ci dëgg tegoo mbir ma loolu mën naa nag fi mu ne saa boo demee ci internet bi dangay gis wax joo xam ne ji wax ja da dañuy seet la leen ci neex rek ñu ñu kippi ko noonu rek yow publi publier ko daa daa daal la ko yónnee su ko defee nga naan dégg la di wax waay te fekk boo déglu woon la di wax safaan bala loolu nag loolu nag lu mat a bàyyi xel la kon xoolaat leen seen métier mi bi ci toppaat nag mooy mooy politiciens yi soo bëggee gis ab workat boo bëggee gis workat képp laa wor ak wor bi ngeen xam nit moom mën naa mucc ci ay nax waaye munta mucc ci ay wor xam nga wor moom kenn mënu cee mucc wor moom koo wóolu rek boo gisee workat xoolal politiciens yi yéen ñi ngeen ci xamoon xool leen leen déglu leen kenn ku nekk ba nga ko xamee lam daan wax ak li mu wax démb ak li muy wax tey ci ay mbëgg jëm yu soq ku bi jaaw kooku bu la waxee ne li muy wax li may wax baax na nga gëm ko daf laa neex rek politiciens yi yéen a ngi bëgg a yàq senegal jikko yi ngeen di wane gone yi di ci teg bët suñ leen ci royee ba mu sotti senegal gépp a yàqu nit koo xam ne kii doo wax li ngay def doo def li ngay wax wax aw fen ak wax wax aw fen ak dara nga yemale day nekk ci biir mbooloo wax fa fen woo xam ne bu subaa balaa ngoon nga weddiwaat ko ci meneen mbooloo doo bàyyi xel ña nga waxaloon ci suba loolu ku man loolu bu la say njaboot royee boo la gis biir yow sax da nga ci am problème kon politiciens yi xoolaat leen seen doxin doxin wi ñaaw na lool te bon tey da ngeen defee nit ñi dañoo amul xel am na ñuy xel dañ cee mënu dara waaye nit ki moom boo ko waxee mu dañ nga waxaat ko mu dañ nga waxaat ko mu dañ boo ko bu ne waaw it dafa am kersa waaye xam ne day dañ gouvernement bi tàmbali ji Macky Sall Moustapha Niass doyen di siis sëñ Bassirou Gueye yéen ñett yi di am ngeen ay responsabilité yu rëy ci réew mi ndax àgg nañ ci fi mu ne politiciens yi yàq nañ politique boobu ba xam ne lépp lu xewati lu ne yéen ñett lañ koy jiñ yéen war ngeen cee seetal seen bopp nag ba nga xam ne dañ xam ne li ñuy wax du dëgg ndax kat lii fi xewoon bëkki démb kat coow laa ngi ne cobbay waaye kenn ku nekk am na noo ko xalaate ku nekk nag xam nga xam nga jëla ciy dëgg sa yoon dajay nekk wala sa yoon bañ caa nekk rek waaye ñëpp xam dëgg gi gono yu ndaw yi sax xam nañ dëgg gi lii nag li muy jur baaxut li muy jur baaxut li muy jur mooy da ngeen di àgg ci nag lépp lu ngeen yëkkatee di nit ñi contre ko te du ngeen ci man dara da ngeen dem ba wax dëgg sax dëgg gi bu ngeen ko waxee nit ñi weddi ko te du ngeen ko man dara da ngeen ko mën a ko ji kon bi ragaleen yàlla loi bu ñu fi tëral mu jàll de yéen ko jàllale waaye dangeen ko waxaat ci kanam yàlla de da ko waxaat ci kanam yàlla de loi boo xam ne day yàq diine li nga xam day yàq ngor boo xam ne day yàq jom nga ne mu wóor la nañ ñi xam ne lii baaxut bëgg ab salaire tax nga wate ko ba mu jàll ñu jaarale ko ci kaw doomu aadama yi wallaay da taxaw ci kaw kanam yàlla wa kulluhumu aati yawmal qiyaamati farda bu keroog da nga xam loo ko jëndee woon jaru te yéen ay tëral loi yi nag te yéen di bu ngeen juboon te mbaandu te def seen liggéey loi bala nga ko bala nga ko wate dana nekk loi bu leer nañ ñi boo xam ne du kenn bu la ko gouvernement wateloo bañal bu la ko opposition wateloo bañal su ngeen ko watee ba noppi jox ko exécutif bi nga xam ne mooy mooy Macky Sall ko nguuram te yéen leen di contrôler te mu wóor leen di buñ jàddee ngeen teg leen ci yoon bu waawaa ñoom duñ mën a wàcc yoon wi loi yéen a koy tëral jox ko jox ko jox ko justice bi justice bi di àtte ngeen di ko contrôler su fekkee ne eh, loi jaar na yoon ngeen contrôler justice mu jaar yoon kon su boobaa dara du xew kon lu xew yéen assemblée yéen a yéen yi nga xam yéen tëgg loi te loi yi te yàlla tëgg ne loi ba noppi ngeen lànk ne loi yàlla bi du fi jàll tëgg seeni loi teg ko ci kaw nit ñi leen def leen neex xalifa nit ñi xamuñ ci xam nañ ci dara lañ leen di jural nag mooy wan leen gannaaw rek kon xoolaat leen seen bopp te xam ne doxin yu baaxut nit ñëpp a ko xam nag ku wax ak fi nekk waaye ñëpp xam li xew tappale yoo mën a def lu mu lu mu jan jan jan jan jan ni nga ko xamee rek la ko nit ñi xame dañ cee mënu dara waaye bis dana ñëw nag ñu wan la ne xam nañ li nga doon def bàyyi leen xel ci lii opposant bi mere président bu mu leen tax a jàdd ci yoon woo xam du yoon président ak nit la kuñ rek waaye nit ñee leen fal nag yéen itam nit ñi ngeen bëgg a jox su président bi jaaree yoon fa lay alhamdu bu jaarul yoon itam yéen na ngeen fexe ba jaar ci yoon waaye am réew kenn du ko taal président de la république ñoo ngi lay sargal ci bis bi ndax yaa jiiti réew mi di la xamal nag Sénégal sonn nañ Sénégal sonn nañ yi ñëw jaarati yi ñi ngi dëgmal nawet bi nit ñi amuñu jiw nit ñi amuñu engrais nit ñi amuñu matériel nit ñu amuñu dund su fekkee daa nga def social lu baax la de waaye ren ji lañ ko gën a aajo woon kon dimbaleel nit ñi yërëmal nit ñi te jàppale leen boo ko defee yàlla dana yërëm yàlla dana dimbale te jàppale la irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama noo ngi nuyu réew mi yëpp di seeri si Muntaxa yàlla ko yàlla yàlla réew mi ni bu amee jàmm mooma ma bëgg nag ñu bàyyiwaat ko xel bu baax a baax bu amee jàmm day mooma fu jàmm am day bu du woon ak moom ne tey réew bi tas na kon nag bu du woon moom réew bi tas na tey defe naa ku doon umpale kuy mun taxaa umpale dara jaam umpale tolluwaayam defe naa ne lii jàll war na la moom kii mooy kan te moo kilifay diine yi mbokk réew mépp la ko bokkal ñëpp ko nangul nu it nangul nan ko yàlla na ko fi yàlla yàggal noo ngi noo ngi nuyu mbooloo mi yëpp noo ngi nuyu ilimaan te di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi te wér taxawaay bi rafet na lool liñ séentu woon ci moom lépp gis nañ ko sant nañ ko bu baax gërëm nañ ko yàlla ko yàlla gërëm te te te te ci barke Sëriñ Tuubaa bokki taalibe yi nongoogu nañ góorgóorluwaat nag nan góorgóorluwaat nag am nañ kilifa gu ko mate nañ fexe ba mat doon taalibe bu ko mat wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu للمصطفى نويت ما يجدد سنته الخرى وإني أحمد